donc li tax ñuy àddu tey mooy président Macky Sall dafa waxtaan ak Thomas nga xam président comité olympique bi nga xamante ne dafa am lu bett àdduna bi muy Covid 19 jaaxal réew yi plan yi yëpp mu changé ko jaxase yëpp ba nga xamante ne xel ak responsabilité mooy tax nit mun cee avancer am ndam. que situation yu mel nii mënoon naa am annulation waaye. comité olympique woné wat nañ né dañu am confiance ci Sénégal am confiance ci président Macky Sall motax ñu nangu report bi ñu dem ak mom ba 2026 lolu nak défé na né président Ndiaye Ndiaye ak dox biñ ci jotta dox Ibrahima le président euh, du patronat les villes concernées dox yiñ ci jotta dox dañuy japp né buñu ko reporter bénéfice lay don ci ñun parce que Diego yu am solo def nañ ko ci experts yi ñëw nañ fii Ibrahima ak Njaaña waxtaan nañoo ak ñi waxtaan war a waxtaanal partenariat yi ñu noué ak France noué ko ak Japon ak dëkki Afrique yi ak patronat yi pour ñu jàpp ci organisation Jeux olympiques yi defe naa ne loolu mooy wane ne am na expérience boo xamante ne gagné nañ ko ci am na jéego yu wóor yoo xamante ne def nañ ko ci ba bu ñu ko yóbboo 2026 defe naa ne day gën a yomb pour que ñu mën a nekk ni ñu ko bëggee ko au-delà du Sénégal nous def ko pour suñu continent confiance pour le mouvement olympique international am le comité olympique international am ci suñu réew am ko ci mi situation bi décalé de 4 ans dina tax ñu continuer liggéey bi pour su ko défé mu Sénégal nek ndamu Afrique